مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما ابدا على président message bi moy ne contane na ci invitation biñ ko yónnee pour mu ñëw teewe si ko so amone lu ko gënal mom ci bopam moy ñu wala moy bal vice président in fact yéen xam ngeen sax ne président Macky Sall nekku fi mu nga dem ECOWAS président Barrow waroon naa dem waaye moom itam xat yi moo tax sa mënut a dem ECOWAS ñaame mu ebal vice président mu dem loolu tax bokk ji lii doolee tax man ma ñëw kontaan na trop toujours dañ koy yónnee invitation spéciale pour mu ñëw fii te su ngeen fàttalee ko ba mu faloo itam ñëwoon na seet si Papa Cheikh waaw kontaante gi itam li ko gën a lat rek mooy ñun ñëpp xam nañ history Gambie ak Sénégal Gambie ak Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñun ñëpp suñ mbokk yaa ngi fii ñoom itam seen mbokk yaa ngi fële kër gi ñu toog nii tey di wax suma tàntam moo fee sëy doomam yi suma first cousin lañ Adja mu nga ne toog moo suma yaay bokk ndey ak baay so mbokk munta passé loolu suma beneen rakki papa bu mu bokkal ndey a baay mu ngaa sey ndakaaru xam naa suma cousin si ñu ngi ci yoon wi ñëw so kàbbee Sénégal daal benn la président kontaan na trop te gën naa bugg daal diggante bi mu gën naa rattax yokkanim rattaxee just about two weeks ago mu tëngu sa ñaar ñetti semaine président Niass ñëwoon na Gambie te purely private visit la woon waaye ñun ñëpp a kontaan ca assemblée ba dafa fekkoon ma voyageur keroog samedi ci fajar gi laa ñëw waaye li moo xat-xat yëpp doon war a delluwaat ñibbi si senegal dafa jaar suma kër loolu yëpp dafa wone rek um, close relationship bi nekk diggante Gambie ak senegal li ma dee wax toujours rek ba méttee Gambie suñ mbokk yi leen njëkk a gis ba pare yeneen West Africa ñu bokk ñoom itam ñëw jàppale ñu. ba moo ba laata leer ñu bari dawoon nañ fan lañ jëg jublu si fii lañ ci baree bari Medina ba ak yi lañ ñëw Papa Cheikh ubbil leen kër gan dëkkuwaay yëpp keroog dégg naa ba ñu ñibbisi ay bos la luye boos yu baree baree bari ñu dellu Gambie président ña sax démb wax naa moom woo ko pour wax ko ne ko ñëw nañ waaye mu nga pare dafa dem voyage ji am na yoon ma nekkee dakaar ñuy waxtaan ma ne ko fi mu nekk ñun itam diggante Gambie Sénégal balaa ñoo dem ci yeneen réew bi di def parliamentary association between en tant que ñaari assemblée yi fan ñu ko war a njëkkee Sénégal ak Gambie mu rafetlu ko lool kontaan so su ñëwee mu dox joxe na nag yéen na nañu dox ci waaye xam naa su ñëwee moom dinañ ko gën a put in place. كنت daal مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما أبدا على